dale nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ca gën a fës uh, soldaa yooyu uh, nag uh, Salif Sadio ak i nitam fëkkoon nag ñi ngi leen di xaar ne daanu leen baax tey jile mooy xibaar bi ñu jot soldat soosé ñu fëkkoon leen nag ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru janvier bi ñu génn loole sax nag fekk na xalif général bu Kukuto ma nga ca boori Kaffrine di sàkku rek kon ci soldat yooyu ñu bàyyi leen di sàkku itamit ñu lal waxtaan woo xamante ne nii dina indi juboo ba jàmm am ca Casamance juróom-ñeenteelu euh, plan d'action ci la ñu ne muy syndicat jàngalekat yi nga xamante ne nii nag fan yépp gis ngeen ni ñoo ngi euh, banque seen yoxo mbaa boog ñu wàññi seen yoxo bu baax a baax euh, ci njàngale mi tey ji nag soobu nañu ci seen juróom-ñeenteelu plan d'action ba tey ñuy wéy di sàkku ci nguurug Sénégal nag mu taxaw ci seen i jafe-jafe daanu yeggit ba fa ñu naan ndaam loo ma nga ca commune bu Diender ca département bu Thiès la askan ci fil électrique haute tension yooyu ñu ne ma nga fay defi njombe ndax ay bakkan a nga ca rot bu yàggul am na ndaw lu góor lu ca ñàkk bakkanam am na tamit ab xale boo xamante ne xaw tuuti euh, musiba am ñoom ñooñu nag ñi ngi sàkku ca ñooñee samp fa euh, fil électrique yooyu ñu dindi ko mbaa boog ñu jaarale ko ci suuf ba dootu gaañ dinañ wax ci wàllu tàggat yaram ak prime spéciale yooyu ñu ne dañu koo jagleel délégation sénégalaise bi ci wàllu football Ndour ñu ne nag prime yooyu kenn gunu ko caa yey te moom jotu ci ba tax na nag kon ligue équipe ligue 2 boobu dana dem dana dem ba fa FIFA nekk mu kalaame fa ndax nag loolu teguñu ko ci dëgg teguñu ko ci yoon Adama kan nekk ñeenteelu vice président bu fédération sénégalaise bu football mi ngi ñaawlu lu ni mel ndax jàpp na ni nag ñooñee defuñu dara lu dul rek songu institution bi muy fédération sénégalaise bu football mbokk yi ponk yaa ngi nii bu jeexee daan jaaxeeloo tuuti ñu faram xibaar yi. Euh, jërë ngeen jëfate ci ànd bi ak euh, télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci euh, xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko rek ci tënk ak ñu ko xewoon ci ndoxteel yi muy soldat yooyu nag Salif Sadio ak i nitam fëkkoon nag jàpp nañu ne daanu leen ba bisu tey ji yem ak altine muy xibaar bi nga xamante ni jot nañu ko ci fàttali ñoom soldat soosu nag ñu ngi leen fëkkoon ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru janvier bi ñu génn loole sax nag fekk na euh, xalifa euh, général euh, bu Koukoutoo nag nekk ca bori Kaffrine di sàkku rek daal ci ñooñee jàpp soldat yi ñu bàyyi leen nag ngir jàmm am moom moomee xalif général ba ci ziyaara bu ñu doon amal nag ci la ko xamle muy Chérif Seydi aline Alioune Badara Atidiani li muy sàkku rek mooy nañu waxtaan waxtaan woo xamante ni dina tax sax nag jàmm am te diwaanu Casamance Omar Ndiaye ak Boubacar Fall bopp ci leeral fan fay amal di jàng kamil ak sàkku ñaan sunu borom bi ci teewaayu Chérif Seydi Aliou Aydara Atijaniya muy ñaan nag jàmm ci Casamance. juste justement loolu démb laa ko maa ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala daal ñu libéré leen euh, calme bi calme et euh, l'entente euh, mu jël le dessus incha allah. moom kilifa diine gi jàpp ne jàmm fu mu amut comme du fa mën a am ba tax na muy sàkku nag ci kilifa yi ne ci réew yi ñu saxal ko. waaw jàmm ci réew bi ça c'est partout par le Sénégal de toutes les régions jàmm on en a besoin soxla dañ soxla parce que jàmm c'est grâce à la paix incha allah ñu dem ci kanam incha allah ñu ñaan yàlla daal yàlla def jàmm ci Sénégal de toutes les régions dans tout le territoire sénégalais. Euh, tamit sénégalais boole seen baat nekk benn incha allah. ren nag nekk ñaar fukkeelu yoon ñuy amal ziare Koukuta ci teewaayu mbooloo mu bari jóge ci biir réew mi ak réewi dëkkandoo yi wër Sénégal ñu ne mu fay jàng nag lu ëpp ay junniy junni kaamil ci diggante ajuma ba dimanche. Euh, syndicat jàngalekat yi soobu ci grève boobu ba tey nag tey dugg nañu euh, ci seen juróom-ñeenteelu plan d'action mu jëm nag ci ni ñu ko xamee muy banque seeni yoxo mbaa ñu wàññi ko na mu gën a rek kon euh, na mu gën a yaatoo ci njàngale mi ñoom jàngalekat yooyu nag di wéy di sàkku rek ci nguurug Sénégal mu sàmmonteeg nag ak la mu xaatimoon la mu leen diggoon ba nëga ni furaas ñu ne nag ay diggale yoo xamante ni du tey lañu ko xaatim ba ñu ko defee rek daanaka am na ñetti at jàpp ñeenti at loolu nag mu nekk loo xamante ne ba nëga ni ñi ngay wéy di ko laaj ñoom jàngalekat yooyu euh, ñu yegg ba fa ñu naan commune bu euh, Ndamlo Ndamlo nag ab commune la boo xamante ne ma nga ca département ma nga ca commune bu dëkk la boo xamante ne ma nga ca commune bu Diender ca département bu euh, Thiès ñoom nag dañoo génn di ñaxtu li leen metti bokk na ci fil électrique haute tension yooyu ñu ne ma nga fay defee njombe ndax am na ay doomu aadama yoo xamante ne dañ ci faral di ñàkk seen bakkan léegi-léeg ci accident lu yàggul dara am na ca benn xale bu góor boo xamante ne dafa faatu am ca tuut tànk boo xamante ne xaw tuuti euh, musiba am ba tax na nag waa dëkk boobu di sàkku ci ñëkk a fa samp ñu jëlee ko fa mbaag boo sax ñu jaarale ko ca suuf ba benn jafe-jafe dootu am euh, Cheikh Anta Diop Seylatira nekk ci commune Diender askan wi yeewoo fii de nee nañ ci njàqare la ñu nekk ndaxte ay fil yu am courant yu ñuy duppee HTA ñoo wërngël dëkk bi te dañoo jaar ci digg kër yi loole nag nee nañ dafa jur loraange ndaxte fil yi de am na ku ci ñàkk bakkanam problème mu courant bi ñu tim nii xam ne danger la station bi ñu tiim nii dafa am benn ndogal bu ñu dal sama turandoo papa suuru ajjuma mu ñëw ay 10 heures rek yéeg ci kaw rek ndeysaan booba yàlla dogaloon ni dafa war a décédé matul ay kii rek mu courant bi laal ko fi mu taxaw dafa dafa lakk ci suufu dër bi matul sa deux minutes mu décédé bu loolu weesoo nag ma ne courant bi moom il faut que ma def ay pexe pour mu jóge fi ma jàpp leen un an ñun ma il faut nga xaar projet am pour ñu mën ko wàcc lu toll ni région Thiès ci seen rek ñu ne ñoom amuñu appareil bi war a tester fil gi pour pour mu xool ba xam baax na wala baaxul appareil boobu Dakar rek la mën a am ñun ci ban réew la nekk te lii dansé la dansé boo xam ni kenn xamul ni mu toll bu nu sañoon lépp la ñuy wàcce ku mu laal moom da dem yooma bu ma fekkoon ci buntu bi kenn waxu ko keneen ku mu fi fekkoon tamit day desati ci tàng-tàng bi ñu amaat ba leen néew te du mujj fenn. ñoom sax ñu ngi sàkku nag ci kilifa yi rawatina nag waa Sénélec ñu ñëw nag dindi fi fiil yooyu balaa yeneen i njombe di ci am. ñëpp ñoo bëgg courant bi jógee seen kër ñi ko tiim état bi buñ ci mën leen dimbali taxawuñ pour meneen ñeneen ñi nga xam ne wàcceegul courant ñu fexe courant bi jóge ci dëkk bi fii ba bayax fii ba mboora ñu fexe courant bi jaar ci suuf loolu mooy normal bi ginnaaw Babacar Diallo mi nga xamante ne moom mooy chef réseau département Sénélec bu Thiès bi ñu jokkoo moom nag nee na daañu am équipe bu ñëw ci bërëb yi xool li ci nekk te daanu jël ay matukaay ngir nag fexe ba kaaraange am ci jandeer ak li ko wër ñu yegg ba ci dëkk bu sell ba di euh, Touba ak ñooy yëgu nag ci mbirum euh, njanaaw yi ñu ngay euh, yëglu ñoom it ñoom li leen soxal rek mooy léeg-léeg nag li nga xamante ni moom la njanaaw gi dundee rawatina ak poussin yi la ñu ne njëg li daal dafa cher ba jéggi dayoo ba tax na ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu dimbali leen nag ci seen liggéey boobu ndax it moom képp la ñu am ngir daan seen doole Serigne Cheikh Mbacke Lo moom moo jiite mbootaay gi ëmb ñuy yëngu ci wàllu njanaaw yi ca diwaanu Touba ñu teewlu ay kàddoom ci ko euh, Papa gi ci wàll wi nga xam ni mooy nit ñi bañ a nekk ci chômage tax na kenn ku ne ñi ci ëpp ci la ñuy yëngu parce que fii am na yu bari yoo xam ne amu ko kon su fekkee ne dañ ci yëngu am ñuñ ko séqal ñoo xam ne ay kilifa lañ am jumtukaay yi nga xam ni moom la am réew wala doxe muy état mu bàyyi leen ñu war a yor askanu Sénégal ngir taxawu leen ci liggéey yi ñuy def ñu mën a am cuuj mën a am aliment bi ñu soxla waaye ñoom dafa mel ni seetluwuñu loolu lan mooy seen xalaat mooy fexe ba ñoom aliment bi ñu yokk ko cuuj yi nga xam ne moom lañ ñu doon jox ñu yokk ko ba pare wëlbatiku di produire defar ay poulailler yoo xam ne loolu mooy ñi nga xam ne ñooy askan wi taxawoon pour waroon jot ci loolu ñooñu dootuñ ci mën a jot kon problème boobu waree na ko lijjanti ñu xam ne nag coono la te bu ñu bëggee ñu ngi koy taxaw di ko jooytu ki nga xam ne tey mooy président de la république du Sénégal muy monsieur Macky Sall parce que xam nañ ni nit ñëpp tey suñu xale yi suñu ñàkkee liggéey bokk na ci loo xam ne ci part de responsabilité ci la bokk te moom fexe na ba ñoo ñuy liggéey ak ñun ñu jox leen responsabilité yi ñu war a yor yëpp. kon na état jóg gëstu taxaw xam ñoom ni ñu nuy traité lan lañ ci war a def ak lan mooy ci seen warugar lii nag dóor bu njëkk la rek li ci des mooy dinañ xool ba xam population ñëpp nga xam ne ñoo ko bokk ñëpp danañ ko taxawee su aajee génn danañ génn. ñu yegg ba diwaanu euh, Podor dalal nañu nag euh, maire bu yees ba di Racine Sy euh, mu wutu fa nag ka fa nekkoon ay Aïssata Tall Sall moom Racine Sy moomu nag am na yéene bu baax a baax nee na ca département bu Podor ndax bëgg na daal def kéemtalaay kàttanam ba askan wa nag fa nu koy xaar ñu gis ko fa rawatina ak wàlluk mbay moomu nga xamante ne dafa am doole ca département ba lu toll ci téeméeri junni ak juróom fukk ci suuf ñu ne ma nga fa te ku ñu bu ñu góorgóorloo tuuti rek Euh, daanu mën a suqali mbay ma bu baax a baax Ousseynou Diop. maire ba fal nañ ko ak président bu conseil départemental ba Racine Sy moo fa ay Aïssata Tall la ngir gox bu nu mel daal di soqaliku moom ma ngay ñaan njiit yi ñu daal nekk benn boole seeni doole. nañu nekk benn xam ne fii yàlla moo ñu fi teg euh, saa yu ko neexee nag jëlee ñu fi nañ ñaan suñu borom rek la mébét bi nga xam ne am nañ ko ci Podor yàlla na yàlla def ba bu ñu tas yaakaaru kenn. mais loolu mënuñu ko def te àndoo ñu nekk nekk nekk benn ndax man gënuma fi kenn. ci bopp département bi du Dia lañ fa daal di tabaat ci gis-gisam tey Podor dafa war a soqaliku waaye nag ngir loolee mën a nekk force ñoom njiit yi ñu nekk benn di xàccandoo di dóorandoo. amul lu ñu yitteel lu dul defar Podor su fekkee ni nit yi bëgg nañ defar Podor dañu nekk benn dañuy boolee seen doole seen dañuy boole seen xam-xam. seen dañuy boole seen ressource ndax podoor jëm kanam. département Podor ci ñaar fukk ñaar ci commune yi nga xamante ni am na ko daani ko installé nañu maire yëpp. ngir mu mën a demal boppam génn ci guta gi mu nekk. ñoom maire yi nga xamante ni tabba nañ leen nag ñoo ngay ñaan mbay mii ñu gën ko dooleel. koom bi fii ay population paysanne la am nañu ndox am nañu suuf war nañ leen dimbali ndax aménagement yi gën a yaatu dimbali leen ci ay moto pompe dimbali ak tous les équipements agricoles. parce que c'est la principale euh, activité bi nga xam ne mooy ci population. fii askan wi ci seen i bopp nag ñu ngay xaar ñi nga xamante ni tabana leen ci élection locale yi ñu génn ñu def ay jéego la ñu gën a bëgg bokk na ci dem beeg dikk bi gën a yéwan waaye tamit ñu jàppale leen ci wàlluk ndox mi. njumit eh, dalal nañu seenub eh, maire mooy eh, Cheikh Oumar Anne nekkit jëwriñ ji dénk njàng mu kawe mi moom moomu nag moom it ma ngay wax yéeneem ca njum googe mu toog mu ne dana def kemt lay kàttan mba taxaw ci jafe-jafe yi askan way jànkonteel rawatina ak xëyum ndaw ña yéena yàbbi nag ci rek njum googu ak tey la ñu fa gis di liggéey bu am solo boo xamante ne président Macky Sall nee na def na ko fa nee sax loolu nag moo tax bu baax a baax foofee ca ñoom euh, ñu euh, may nopp bu baax a baax kii di président euh, Macky Sall ñu àddu ci leneen yeneen commune muy commune bu Mbaam ak taata gin ñoom it samp nañu seen maire bu yees ngir mu tàmbali liggéey ba ca commune yooyu waaye ci fàttali Mbaam ak Tataguine nag jàpp leen ni ñoo bokk benn jafe-jafe muy wàlluk ndox ñaari maire yooyu nee nañ dinañ def seen kéemtalaay kàttan ba askan yooyee nag ñu génne leen ci jafe-jafe boobu ñuy dund Aminata Goudiaby la ñuy njëkkee buñ sukkandiku ci ki nga xam ne nag moom lañ fa tabb maire bu bees nee na askan wa téeméer bu jël daanaka juróom benn fukk yi duñu jot ci ndox mu sell te neex moom nag ñu ngi ko doon installé officiellement ci fonction maire bi nga xam ne moom lañ ko tabb moom Ibou Ndiaye ne xeex dëgg la nar a def ngir régler jafe-jafe bu ni mel jafe-jafe bi gën a xam ne yaakaar nañu ci lañu jën a jàmp moo ñàkk ndox ñàkk ndox Tataguine am na ay ay dëkk yu bari yoo xam ne tey seen ndox dafa xaw a sooxe yooyu nag jëloon nañ engagement ne incha allah bu ñu toogee dinañ def suñu kéemtalaay kattan pour que ñooñu nga xam ne dañoo am jafe-jafe ndox ñu fexe ba ñu am ndox waxoon naa ne juróom-ñaar fukk ak juróom yoo gis Tataguine dañoo xaw a ñàkk ndox foo dem liñ la jëkk wax mooy dañoo bugg dañoo am dañoo dañoo soxla ndox ñu dem nag ci beneen gox waaye mook Tataguine ñoo yam benn problème ñi ngi ci mbam féete ci département bu Foundiougne foofee nag ñàkkum ndox moo xam ne daanaka duré na juróomi at moom moo leen sonal ngir lijjanti jafe-jafe bu ni mel ngóor jon mi nga xam ne moom la ñu tabb mu nekk maire bu bees tañ doon ko installé mu ni moom bokk a yëkkati que damaa bokk ci ñi nga xamante ne gëw ko ne mun naa am ndox Dakar te amuloon ambulance macha allah yàlla mu def may nañu may nañu ambulance ambulance mu ngi fi mu nag mooy xam nga poste de santé moom mbam la nekk village yi am nañoo village yoo xam ne 7 kilomètres 8 kilomètres la def pour ñëw fii ni loolu dañ ne pour loolu wàññeeku il faut que dëkk bu nekk am sa case de santé parce que loolu mooy santé de proximité. ci commune bu Tataguine moom maire bi nga xam ni itam lañ fa tabb muy yoo xam ne amul benn médecin bu yeewu ci biir gox yooyu jàpp naa ne loolu du di seen mandat bu njëkk ñoom ñaar ñëpp nag benn yitte rek lañu am nee ñu gën a ñoŋal dundinu askan yi nga xam ne ñoom la ñu fas yéene jiite Aminata Goudiaby ci jamono joojee nag commune bu euh, Bélé moom euh, maire ba nga xamante ne moo fa nekk euh, ca boor yi Tambacounda la moom nag li muy sàkku rek mooy ñu ubbi frontière yu yi su ko defee nag wàllu koom ga daal di suqaliku ndax seetlu na ni frontière yooyu ñu tëj nag dafa indi ay jafe-jafe yu metti ci kaw loolu it mi ngi sàkku ci président Macky sàll mu def kent lay kàttanam ba nag Afrique gi daal rawatina ak mbootaay gi mu jiitee dëkk yëpp do doon benn Oumar Gueye Amadou Diédhiou a fës ci ay mbébétam ci jamono ji ki nga xam ni moom mooy maire bu Bélé di Seydou Oulel Ka mooy nan la njiitu réew mi président Macky Sall ak waa CEDEAO di waxtaanee ba daal di nag ibbiwaat frontière yu Mali ndaxte nag askan wi yow ci dëkk yi nga xam ne ñoo fare ci corridor bi waaye itim ba tey rawatina dëkk yi nga xam ne ñoo tiim ci frontière bi yu demee ni Bélé ak Kidira daanaka fi mu ne nii jafe-jafe yi dikkal na leen ci wàllu restaurant yi ci wàllu béréb yi ñuy jaayee carburant ak yeneen yu ni mel. léegi xam nga oto bu ñu doxul rek recette du am restaurant yi du ñu marché ah carburant station yi du ñu marché donc loolu gis nañu jafe-jafe ci commune bi mais certaine aussi. xam naa même yeneen communes yi nga xam ne ñu ngi dëkk fii ci frontière bi ci région Tamba ñun ñëpp ñu neen ko yëgaandu léegi nag ñun lu ñuy wax rek ñaan état Sénégal ñaan CEDEAO nañu toog waxtaan ñu saytuwaat Mali ndax frontière yi mun a ubbeeku ñu am jàmm ak salaam xaritoo bi ak mbokk bi ak dëkkandoo yi mu gën a rafet dem ak dikk bi bu ma nee dem ak dikk nag diggante dëkk ak dëkk bu nawet ñëwee yoon yi baaxul dëgg yàlla nag ñu ngi sant état bi def am def nañ ci jéego bu rëy waaye ba léegi des nañ beneen bii muy dafa am ay dëkk ñi nga xam ne amuñu électricité yooyu tamit dinañ ci taxaw ci wàllu ndox bu ñu war a jëfandikoo naan ngir suñu dund baax boobu tamit dafa xaw a manqué ci commune bi donc ñett yooyu daal ñoo ñi nga xam ne ñii ñooy vraiment manquant boo xam ne daal population ñu ngi ci li gën a jàmp bokk na ci ñu daal di yeggale seen mairie hôtel de ville bi nga xam ne ñu ngi koy tabax daal di itam yeggale stade municipal boo xam ne fas nañ ko yéene tabax ci ndimbalal Areski waaye itam ba tey ibbi benn rajo communautaire ngir gën a mën a gindi askan wi ci commune bu Bélé. waxoon nañ ko ci ponk yi ak euh, coowal euh, prime spéciale yi ñu euh, jagleel délégation bu fédération sénégalaise de football jul coow lool nag waa jàmmo bu Fatick sax ñoom ña ngay yëglu ci wàll woowee ñoom nag man ko nanu daal di jàppale nag seenu président muy maam Adama Ndour ñoom nag la ñu xamle mooy premier daal kenn gënu leen caa yey kenn gënu ko caa yey moom moomee tey nag jotul ci prime yooyu ba tax na nag moom équipe boobu fare ci Ligue 2 bi na dana dem kalaami di euh, ca euh, FIFA euh, génn googee nag neexul dara kii di Amadou Kane moom moo nekk ñeenteelu vice président bu fédération sénégalaise bu football ndax dafa jàpp ni ñooñee kat waxuñoo kenn ku dul rek kon fédération bi ci boppam lanu song ñu teewlu ay kàddoom tey moo nekkoon ganuk info ci micro Chérif Dia. waa muy jamono de Fatick muy maam Adama amuñu fédération sénégalaise de football wala di attaquer son président ou bien le le le le Ablaye Sow ou bien le ministre des sports su dee maam Adama ils ont des problèmes il a dafa ak ak Matar na ko dem régler Fatick fédération amul dara lu mu si bokk si loolu loolu moo tax dama koy ñaawlu te si communiqué bi nee nañ dañu dem tas mais loolu la waroon def kay su dee dañu gis ne ku lu ñu def maam Adama jaarul yoon mais dañu waroon dem mais dem di wax lu ñaaw façon bu ñaaw bu ne di ko wax président fédération man pour noonu mu ne man lañ ko wax te Sénégalais bu ne dafa war a sentir dans cela donc tey jii nii lépp lu nga xam ne def nañ ko si prime yi yoon la jaar prime yi dafa am règlement bu ko tëral pour le football pour yeneen fédération yi nekk Sénégal ak yeneen fédération yi nekk Afrique donc lépp lu ñu si def jaar na yoon maanaam ne ñu amul yàlla moo ko dogalul amoon nañ wala dinañ am ñu am ñi yàlla moo ko dogal seen wërsëg la léegi lu ñu war a def ñun continuer di banneexu suñu victoire musuñ ko am am nañ ko soo xoolee sénégalais yi nu ñu sonnee dañu war a continuer di baneeku war a continuer benn pour préparer suñ ñaari match aller retour contre Égypte préparer participation football bi par rapport à inauguration commencé euh, stade Sénégal mais mun a préparer aussi tournée nationale bu ñu nar def pour présenter Sénégal Sénégal kii comment Sénégal trophée bi. ñu des ba tey ci tàggat yaram bi yoon nag wax rek ci juróom-ñeenteelu bëccëg bu euh, Ligue en fii ci euh, Sénégal euh, Guédiawaye FC nag ñu gis ni wàccagul daal yoonam ci ndam li nga xamante ni mi ngi koy am booba tey ñu ni bii nag mooy juróomeelu ndamam mu am ko génération foot moom am moom it ndam ci kaw Ndiambour Tëngéej FC ak ASC Jaraaf ñoom dañoo daal di témbo mu nekkoon programme bu juróom-ñeenteelu bëccëg bu Ligue 1 réew bi fii ci euh, Sénégal du ñàkk ngi ñu delsiwaat ci ci ni mu gën a yaatoo ci suñu yeneen jotaayu euh, xibaar lay doon ñu ànd yër nag euh, yëglekaay yi ak la ñu xëyee tey ji El Hadj Assane Gueye lañ ci àndal xëy mbiram paluk premier ministre gi ñuy xaar boobaak léegi ci réew mi ak ni mu ko waxee di saayu xaar bi ministre yi fi ne ku ne boobeeb xaar dafa yemale say yëngu naka noonu nit ñu ne sooxeel na doxin ak doxalinu nguur gi yéenekaay bu groupe Futurs Médias dikkaat ci njàngatu ñenn ci boroomi xam-xam ci wàllu sart réew ñoom lañu gis mooy ñàkk pal geeg xaar googee dafa safaanoog sart réew mi ci boppam Le Quotidien moom la mu xëyee mooy yeesal gi ñuy xaar ñeel gouvernement bi di remaniement ak allié président Sall yi Idrissa Seck ca la soxna Aminata Mbengue bi jàppale leen ay guy yu oyofi reen lool dem na sax ci waxin ba ne seen crédit jeex na li ko waral di seeni langi politique ak nanu nërmale ci watey gox-goxaan yi nu génn lu jëm ci yooyee watey gox-goxaan nag yéenikaay bi di réew mi soxna Fatou Sow Sa socio anthropologue di directrice institut de la femme di du genre la dalal muy wax ni mu bëggee naam ci ba mu gisee yenn ci soxna ñu gaal lool écharpe maire ci gox yenn yi waaye ak meram naka noonu ñàkk àndam ci ñenn ñi respecté wul parité gi ca mu ne waa yeewi ñoom xawma kan waaye ñoom digge woon nanu ak wàccoo bu nu defee ni ñeneen ñi daanu bette lool waa Grand Place ñëw ñoom ci Oumar Gueye mi lànk ne daanu na ba tey ci Sangalkam ca xew ak teg ci toogu gi maire bu bees ba teew fa ñu ne yabalul it fukk ak juróomi conseiller Benno Bokk Yaakaar am ñu jàpp ne dafa xund maanaam fair playul Oumar Gueye ne déet daf di républicain rek maanaam di respecté loi dëkk bi ak clamé ginu dugal ngir niilal fa résultat yi terewul nag fa lu bees Alpha Bokar Xuma yëgalu ko yaram ba toog na yëkkati nay kàddu it woo ñëpp ci bennoo ak booloo ginnaaw wotey gox goxaani président Macky Sall am na lu ñëw giifal ko muy jën wu mu jàpp ci arène bu Sénégal di maire bi falu bees ca Médina le mandat ne Macky décroche Bamba Fall terewul tribune ne moom Macky Sall ci géeju problème lay fay ak jafe-jafe yi ku wëree fu ne rawatina front social bi ak grève yi bokk na ci yooyee grève bi ci l'école bi laas ne l'école bi kay mu ngi suux ci crise bu xóot ndax waxtaan yi diggante nguur gi ak jàngalekat yi échecati na le soleil xëy xamal ñu ne état bi teg na ci taabal ji moo ne juróom benn fukk ak juróom-ñeenti milliards waaye G7 di mbootaayu syndicat jàngalekat yi dañoo jàpp ne dafa néew lool sunu ko méngaleeg tawat yi génnul maanaam bu amul ak sarale ndax ba fii jàngalekat yi nee ñu gisagunu lu ay gët mën a tegu di lu concret waral ñu wéyal grève bi ci neuvième plan d'action ñu waxtaane lamb ji ak combat bu am solo bi diggante rëg-rëg ak guy gi le 20 février lay doon incha su sunu lamb jàpp ne jàppante ñaar ñu bëgg a yéeg lay doon ki yéeg ba noppi macha allah ci wàllu football góolu équipe nationale bu Sénégal Edouard Mendy stade yéene kaay ne mu ngi wéy di dajale raaya ca moo ne bërki démboo njaay 2014 mu nekkoon ci chômé nga du monde des clubs bi ñu doon joué ci émirats arabes unis ay bés bi passé mu amoon ndam lu rëy ca Cameroun mook équipe nationale bu Sénégal jël coupe d'Afrique bi teg ca doon góol bi gën a ràññiku ci boobépp jogante Vox Populi ak coowal Primi Kaani dalal moom kenn ci kilifa yi ñu ci tuddaw turam ci coow loolee di ministre Ablaye Sow di kilifa ci fédération football bu Sénégal moom Ablaye Sow jàpp ne dafa am ñu koy tuumaal ca duñu ko teg fenn fi waaye yàlla dina àtte football bi it mu ko tax a jóg waaye gi naan dañu ko tëb ci prime yi nag mu ñëw ñu defal ko lépp jour ya mu naan fay leen ma ca nag mu ne gor ci bu xaalis teewee lañu koy ràññee su leen nag ñoom xaalis leen tax a jóg mu ne nañ jël lépp Ablaye Sow ne jamono yi xelam ak dooleem yëpp mu ngi ko jëmale ci Sénégal Égypte ci weeru mars Ablaye Sow yamu ca ndax ci waxtaan wu yaatu weeg Vox Populi ñëw na ci ñenn ñu mu ne jaral na leen ñu demoon seeti sëriñ ngir Sénégal ñàkk ca loolee am na ci firnde waaye mu ne yàllaay dogal ñu koy jaajëfal bu baax a baax euh, doyen Assane Gueye mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñoo ñu fare woon ci euh, machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti rédaction bi euh, dina fi teewaat ci yeneen jotaayu xibaax ñu leen di ñaanal kenn dalug jàmm te di ko sàkku ci yéen dem ba ci beneen plateau bi rek fekk ji fa Pape Cheikh jébbalaat ko ngay mu wéy ak yéen rek ci midi plus jaa ngeen jëf. ne baal ma de buuba laay waxal parce que buuba dafa bëgg Seydina Mouhamed te Euh, dafa dafa dafa dafa dafa nekk directeur bu baax directeur boo xamante ni boo ko bëggee nax rek boo ko jaarewul ci Seydina Limaamu jaale jaarale ko ci Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam donc dama ko doon dóor quoi moo tax bi ngay tàggatoo dégguma la. <laughs> déggante wuñu nag lool lool Pape Cheikh dégg bi neexul mais ma bàyyi la nga wéy rek parce que am naa jafe-jafe pour dégg la tuuti. voilà même même man maa ngi lay dégg faiblement mais quand même ñu ngi lay gërëm bu baax gërëm tamit rédaction bu télévision Futur Média dig daje gi ak yéen xam naa ci kanam lay doon à partir de 19h information non stop euh, ngeen di am entre soir d'info ak euh, ñaari. Euh,